Awesome. police daal dina baax libéré yeewi fanweer ak juróom-ñaar ci fanweer ak juróom-ñeent yi nga xamante ni ñoo rëcce woon mucc ci accident ba fi woon ñeel seen ak gaal gu mbëkkante ak gaal geneen di bu marine nationale ñu bari ca ndaw yooyee fekk baax ca mexe seedey kenn ci euh, seen frère euh, ndaw yooyee ci kanam tuuti ci gëstu ak liggéey liggéeyub Anna Rocha lay doon fileeg boobu ñu ànd ak Barthélemy Ngom ci woote wàllu bu ñeneen di ay wayjur yoo xamante ni euh, ba tey ji amuñu benn xibaar ci seeni doom yi demoon géej xamuñu ndax ñu ngi wéy di dundam déet moo waral ñuy sàkku taxawu ak wàllu jëme ci nguur gu Sénégal Barthélemy ay nit yu ñàkk seen bakkan ci géej gi bàyyi seen waajur ñu nekk ci njaqarek tiis mbëkk mi di barsa wala barsaq li mu def ci ay victime ci fan yi bari na seedey Salimata Gueye mi nga xamante ni doomam alxemes gi la am embarqué ca Mbuur nee na gaal gi tàkk ci la doomam newoon mu yokk ci nag ne doomam mosu ko yëgal ne dafay bëgg a dugg gaal pour dem Espagne yëguma ko benn yoon man daal dem naa ñëw tëdd ñu woo ma téléphone lu ma wax tati ma ne ah mu ne ma ne ma tati man Espagne ci gaal gi ma tudd yàlla jóg jënd ñetti mbuusu soow faraxe ko dellu si waat toog loolu c'était le vendredi samedi ba dimanche ma ne xaaral ma woo leen ndax man kat man gisuma kenn dégguma kenn bi ma wootee ba sonn jotuma Baye Abou ma woo yaayu Baye ma ne ko taa Yacine ana Baye Abou maa ngi koy woo ba tey gisuma Baye Abou mu ne ma Baye Abou de génn na ci suba waaye sali de xaaral ma wax la ma ne ko ah lan la mu ne ma ñu xale yi de gaal googu ñu la doon wax dafa échec ma ne ko jàmm mu ne ma waaw ah, ma ko ana xale yi mu ne ma alsaan de génn na ba mais jibi kenn gisu ko jibi sumaare mi toll ci fanweeri at ak lu teg bàyyi na ci gannaaw soxna ak benn bébé bu am benn at beneen ab soxna bu nekk ci mennam situation bi di Fatou Maar rakkam di Modou Seck moom la ñu tegul gët amuñu ci moom nouvelle boobaak léegi avant màggal mi ngi woon fii Dakar si ñun mais bi mu demee màggal ci la jaare noonu dem mbuur ci papaam bi ñoom ñoo ne moom gisoon nañ ko ci gaal gi loolu lañ wax mais ba léegi dégguñu benn nouvelle xamuñu si lan la nekk ñoom ñëpp a ak tiis loolaa tax Salimata Gueye mi ay bëtam fees dell ak rongoñ di sàkku ndimbal ci autorité yi muy gouvernement muy keneen ku dul gouvernement ak lépp ku ci mën a jàpp waral ñu suñu doom yi ba ñu teg leen bët même buñ leen gisee te amuñu bakkan it ñu xam ne fii lañu suul suñu doom doy na sant yàlla ñu ngi leen di ñaan ñoom ñooñu nga xam ne ñoo mën ñooñu ëpp pexe dañu am suñu doom yi rek fuñ leen ti denc ñu gis ne lii dee nañ sax ñu denc moo ñu gënal ñu ngi leen di ñaan boobu ndimbal man daal woon naa ñëpp ñëpp ñëpp ma kenn lu ma ci waaye mën a defal ba ma gis sama doom ba denc ko ndax moom moom ma lay wax noonu ba ma ko am juróom weer la papam génn àddina papam lañ ko tuddee xamul papa maag sama doom kenn fekk ma ci may débrouiller ak moom ba tey jii mu am trente et quelques années yor jabar yor doom bari na ay njaboot yoo nga xamante ne ñu ngi dund situation bu ne mel waajur yu bari amatuñu benn nouvelle ci seeni doom yi nga xamante ni nañu dañoo jël gaal ndax immigration clandestine risque ak danger rek a jërëjëf euh, Barthélémy euh, bato bi nga xamante ni mooy gaaluk euh, marine bi mbëkkante woon ak gaal geneen yaboon ay aji tukki ci anam yu dëppoowul ak yoon ñi ne woon ci gaal ga fanweer ak juróom-ñeent yi nga xamante ni ñoom rëcc nañu ci mbëkkante googe fanweer ak juróom-ñaar ni ñu leen ko waxee ci ndorteelu xibaar yi police ba na leen ñu dellu seeni i njaboot bi ñaar ñeneen ña ñu ngi garda bi ñu tee ci xibaar yu mujj yu RFM am na keneen di ñetteel koo xamante moom démb ci guddi lañu ko teg loxo xaaj njogu moom ñetteel nit boobu ñu téye gardien la cib école ñi ngi ko jàpp bik booru huit heures ci guddi ca Yaraax moom moomu nag moo doon dox diggante bi ñi nga xamante ne ñooy yóbbuwaate ak ñi ñuy yóbbu ci suñuy xibaar ndaw yooyu dañ leen dajale woon ca yaraax ci béréb boo xamante ne dañ ko nëbb laata nag ñu leen di jël yëpp leen ci woto yóbbu leen ca tefesu Soumbédioune nga xamante ne foofu la seen gaal wala noonu déparé ñu bëri ci ñoom nag ñu nga dëkk ca Ngaye Mékhé nekk ci département bu Tivaouane ñeneen ñi ñi nga dëkk Ndar ak Touba lu soxal sax Touba ndaw yi nga xamante ne dañoo bëggoon a jël gaal ngi dem ci Espagne xamal nañu ñër enquête bi ne dafa am benn waay boo xamante ne moo doon wër eh, ci dal yi ci jamonoy màggalu Touba. ne mën na leen a yóbbu ca réewum Espagne ki sooke mbir moomu nag moom nee nañu benn nappkat la bu dëkk ca Ndar xam nañ ko te ñu ngi koy wër jamono ji enquête kat yi bokk ci bànqaasi police bi xeex wàllu mbëkk mi gannaaw ay waxtu bu ñu dégloo ñi xamante ne ñoo rëcc ci jéey ji. ñaar rek lañu ci mujjee téye di ñaar ñi nga xam te ne ñoo yoroon gaal gi. yeneen fanweer ak juróom-ñaar yëpp dañ leen daal di bàyyi ñu ñibbi seen kër toll nañu ci fanweer ak juróom-ñeenti ndaw ñoo ëpp chance seen yeneen i moroom ni xam te ne kenn gisu leen ba léegi te xamuñu ci ñaata la ñu toll ci seen wax nag gaal gi yeboon na juróom-benn fukk jàpp juróom-ñaar fukki nit ci bi muy mbëkkanteeg benn vedette bu marine nationale guddi dimanche jàpp altine bi ñu weesu fii ci waaxu ndakaaru yi. El njogu Ndiogou Diène ci jamono gune yi bëgg a xewalaat euh, mbëkk mi euh, barsak barsak ci la association bi yëglu association bu ëmb ay ndaw yo xamanteni ñom ci euh, tukki mu dëppowul ak yoon ci lañu rëccé di rescapé bu ñu sañon nguuru Sénégal audité càmbar koppar yi nga xamanteni ñu ngi koy def ci walu tukki momé nan ak taxawu ci ñu gis né euh, demul fa euh, joxoj nañ ci nak ONG ñom association rescapé ci walu immigration bu Thiaroye sur Mer sen dit Moustapha Diouf ñu tewlu ko mo nekkoon tay ganu RFM matin. Union européenne ay milliards la ci def ci immigration ku ne xam na ne tey ji xëy na l' état du Sénégal def na ci ay milliards. parce que du ma taxaw naan defuñ ci dara mais milliards yooyu nga xam ne Union européenne moom la def ci immigration clandestine fan la jaar kan lañ ko jox am nay justification am nay justification ñun gisuñu dara du dara lu ñu gis ci immigration clandestine. maanaam dañu war a càmbar xale xaalis boobu ñu ci dugal. xaalis boobu ñu ci dugg fan la jaar ak ku ko jël ak kun ko jox. nan ko càmbar ba pare nag ñu toog si sur table waxtaan bu ñuy waxtaan ñu impliqué ci ñun. les associations mais ñoom ñoy waxtaan ci seen biir kenn mosu ci jël gaal seeni doom duñ jël gaal xamuñu géej gi lu ci ne xamuñu fu île du canari ne koo ci dugal ci gaal tey ñetti fan mu ngeer dee ci ndox mi ba pare nag diñu bëgg rëy ak seeni costume taxaw ci télé yi roje yi financement bu génne ñu jël ko ba pare accaparé ko téye ko ñoñ ñan la ñi def lool mais les gars yi gars yi bo bo ba légui ya nga diggé fi ay gars yo xamantene ñu taxaw fi ne ñom ku ci nekk nga taxaw dal di ne euh, euh, ñi dem ci gal yi du ñi lebu te ñom ñoma former ñoo ñuy wax loolu ñoo ma formé en deux mille euh, dix ñoo ma yóbbu ci forum social mondial bi. am na ay ajoor ajoor yu loru ci yëf yi itam. déggoo li ma la wax ajoor yooyu ñoom ñuy ñëw seen xaalis fekk suñu mais bu ñu demee ci géej gi ba nga xam ne dañoo war a yóbbu gaal gi naan ay fondé taxaw di naan ataaya yooyu ñoom dañuy tëdd ci biir baas bi. ci biir baas bi ni ñuy tëdd duñu jóg. ñooñu bu ñu demee ñoom la espagnol yi jàpp di leen téye ñun li ma lay wax nii li ma lay wax nii ñun dañoo xam li ñuy wax bu baax

ak juróom-ñeent yi nga xamante ni ñoo rëccee ci gaal gi mbëkkante woon ak euh, marine euh, benn ci kon gaali marine nationale euh, kenn ci ay seede nag di rak wala mag ci kenn ci ndaw yooyu rëcc ci boobu accident biir géej fekk baax ci mexe moom rakk a aboy laago la doon yëngu ci wàllu njaayum glace waaye daal mënu ndox sax mu ne ci dafa amoon ndeke mbébét gu ni mel ana biig métti woon na lool ci juróomi ndaw yu meexee te mucc ci jéye bi am dimanche ci waaxu ndakaaru yi police daf leen déglu ba 21h ci guddi 22h la ñu mujjee dugg ci benn bus horaire bu doon jëm ndar bori 4 du matin la ñu yegg seeni kër loof bokk na ci ñoom xaadim fall tollu ci fanweeri at ak ñaar amee laago doon jaay glace ca quai de pêche bu Joal magam bugoo di mam góor fall yëf yi daf ko jëlee kaw wax samedi jóge fi ba vingt une heures ci guddi laay doog a xam ne moom ci la bokk moom bi ñu jógee Joal ñëw jaarul ci kër dimanche bi weesu boori deux du matin la way tukki yi jóge Soumbédioune ngir wutali tugal waaye marine espagnole bi mu ngi leen doon bàyyi xel Khadim Fall nettali na magam bile ni yëf yi demee bi ñu dawee ba trois heures du matin ci la leen marine espagnole gis alerte leen waa ji bañ a taxaw seen capitaine ñoom ne du taxaw léegi bi espagnol yi xamee ni kii narul taxaw ci la ñu woo marine sénégalaise mm-hmm. marine sénégalaise dàq leen bi ñu leen dàqee ba tolloo ak ñoom capitaine marine bi ni leen taxawal waa ji nii moom du mus taxaw ci la ñu weccente ay saaga tilima sama rakk wax bi ñu ay saaga mu ni ko moom du taxaw marine bi daal di dellu ginnaaw pour mën a jëli élan ñëw mbëkk gaal gi bu mu ko mbëkkee ci la gaal gi renversé wu dëpp ñaari ndaw yu meexee ñoom ñoo ñàkk seeni bakken ci l'accident boobee waaye bilan bi mënoon na gën a metti ndax ci xibaar yi ñu taataan fanweer ak juróom-ñeenti ndaw yu meexee ñoo yéegoon ci gaal bi waaye ñenn ñi dañoo mujjee wàcc par la force ndax manqué place pour man RFM mooy rajo bi gëna jëgé askan wi. RFM Radio bi jaamu seen soxla. président mbootaayu magistrat Sénégal UMS Souleymane Teliko tey jii dafa daal di xey wuy ji ak woté wooteeg deglu ñeel ko euh, ci kanam kon commission disciplinaire bu magistrat yu Sénégal ci xibar la ko waral ak jural Bobé bu woté moy xalaat bu mu joxé won ci atté ba fi won ñël mais rep euh, Dakar bu won Khalifa Ababakar Sall mu gisoon ci wàllu procédure lén ci rek rek lolé melni du won lu dëppoo ak gis-gisab euh, chancellerie di kilifteef

Euh, Actu 221 leeral yeneen ak Amadou Sabax tribunal des pères Bokored a donné manam avertissement teg ko ci site bi di actu 221.net point net mon mi nga xamné sax article Bo xamné député Bid di Aliou Dembourou Sow mo doon wax troisième mandat bu Macky Sall avertissement ñu jël ko teg ko ci ndoddu ki nga xamné ne ne mooy Diagne mi da nationalité guinéenne bu magistrat Suleiman di Teliko Samba Jalimpa Badji mon yor kàddu CORED actu 221 euh, tribunal des pères ni actu 221 point net nu mu anam yu mu siiwalee xibaar yooyu mën na yee fitna ci réew mi euh, ba tax mu servir ko avertissement ci auto saisine Diagne momit avertissement lañ ko jox ndax tribunal des pairs dafa japp ni kaddu yu mu yëkkati teg ko ci euh, Souleymane Teliko nekkul ay kaddu yo xamantene ne war nañ ko yëkëti teg ko ci doomu adam plainte bi nga xam ne Abdoulaye Cissé nako journal bi di Le Quotidien tribunal des pairs de hamnane ne ne plainte jaarul yoon Dakar Actu ak L'As Quotidien ñoom ñaar ñëpp jot nañ ay avertissement gannaaw ba ñu publier benn article boo xam da doon wax ci suite sas ci ñaari plainte yi Birahim Dieng déposé benn bi contre quotidien L'As ak benn bi contre euh, Dakar Actu ci wàllu woowu tribunal des pairs euh, jox na it avertissement maanaam artu na quotidien L'As di fàttali L'As nag ni droit de réponse dafa ni loo xamante ne mënul ñàkk ci Dakar Actu ñoo moo bokk daan ak L'As muy avertissement donte sax qui jiite rédaction pour Dakar Actu mom xamle na li ni njuumte la ci mom plainte bi nga xamné né mom la Sidi Lo journal bi di l'observateur ci benn coowal souf criminal des pères di xamal ki nga xamné né moy mooy Sidi Lo droit de réponse dafa am ay yone mu japp né tontu bi nga xamné né l'observateur def nako ci bobu les plaintes na nako ci yone jërëjëf Amadou Sabax ba tey ci xibaaru bëccëg ak RFM mbootaayug étudiant yu Sine Saloum yeglu, yëglu ña ci fare ak campus ba ca Fatick ñoom dañoo jàpp ne foofee daanaka ab xataay ci wàllu jumtukaay it du lu mën ay gët mën a tegu moo waral ñuy sàkku daal ak taxawu ci kilifa yi ndax du ñoom kese maanaam campus bi boo ko déggee ci étudiant mooy fa nuy dëkkee di fa yeewoo ko euh, campus ba ca Kaolack Kaffrine it naka noonu moo waral kon étudiant yi di tiit rawatina ak ñeneen ñu nu war a dalal ëllëg ci ñu jàpp ne ba tey jii ni nu ko waxee ci njëlbeen boobeeb daara dara xataayub neen euh, dañ ciy déglu président boobu amical étudiant yu campus Fatick Mouhamed Kamara ak Aminata Goudiaby li ñu war a xam mooy université du Sine Saloum ba tey amagul li xam ni moom mooy ñu war a yi ñu war a nekkee mu nekk si fi ñu war jàngee wala yi nga xam ne moom la ñuy dëkk parce que yooyu yëpp ay jafe-jafe la yi nga xam ne am na fi ñun ñi ngi fii ñi ngi dem ak li nga xam ne moo fi jot a am muy moyens existants yi dañuy àll locaux yi nga xam ne fii la ñuy jàngee waaye xam nga ni loolu mënta mënta jël en compte ñi nga xam ne ñoom ñoo war a ñëwaat kon loolu dafa nekk loo xam ne lu jara lu jara wane la pour ni xam ni ñoom ñoo war a ñëw fii si université bi fi mu toll nii nag loolu dafa doon jafe si ñun parce que même si côté social soo xoolee benn restaurant kese am fii au niveau de de Fatick soo demee Kaolack benn restaurant lañ am Kaffrine ñaari restaurant loolu noonu yëpp te restaurant yi comme capacité yi nga xam ne mën na jël étudiants yi xam ñoom ñëpp ñoo nar a ñëwaat fi mu toll nii bu dee ISEN dafa nar a jël lu bëri. ñu xam ni capacité yi nga xam ni war na ko mun a am amagu ko comme fi mu toll nii indi fi ay étudiants day doon loo xam ne jafe-jafe lay doon si ñi nga xam ne dañuy ñëw doonaat jafe-jafe tamit si ñi nga xam ne ñoo fi ne parce que nga xam ne manquement yi du yemul rek si wàllu locaux yi parce que même professeurs yi sax bëriwuñ fii ñu waxtaanee jàngoro ji di coronavirus ak euh, xayma ak nattab tey le ci Sénégal euh, daal dinañ fi xayma fukk ak benn ay ka yoo xamante ni ñooy kon ñu amee euh, jàngoro ji fukk ak benn ci test yoo xamante ni juróom-ñaari téeméer la ñu jàpp ne nag wàllu cas contact ñett la ñu ca am benn bu bawoo bitim réew juróom-ñaar yoo xamante ni xamuñu fu nu ko jëlee di cas communautaire ci wàllug wér gi nag macha allah téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett tey ji wala démb ci xayma kër docteur nemmiku Eh, ci kàttanu borom bi kenn ku ci ca faatu jamono yi nag juróom-benni téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ñoo ne ci loxoy kër docteur. ëllëg gàmmu euh, ñuy màggal euh, gane si àddina ngën gi mbindeef rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di fàttali nag ne waa mbëllëxi ñoom ñu ngi fàttali njaboot gépp di njabootuk El Hadji Daouda Dia ne dañu koy daal di euh, ba ba beneen ci wàllu dajaloo donte daanu màggal gane si gi waaye daal dañuy daal di tënku ci ndigal tukkee ci xalifa bu tedd bi ci Tiwaawan Serigne Babacar Sy Mansour ci seen kàddu googeeg njabootuk Hadji Daouda Dia El Hadji Aliou Dia gannaaw dogal bu am solo bi nga xam ne bii Serigne Babacar Sy Mansour xalif général de Tidiane yàlla na ko yàlla dolli wér yàlla na ko yàlla gën a dolli taxaw di dogal boo xam ne teg na ko ci xam-xam teg na ko ci sunna ànd ak itam ñewanti bu baax taalibe yi nga xam ne yii bu wootee ñu wuy si ko mu ñaan ne ren jii daje yi nga xam ne yii tabaarakallahu dañ ko doon def yëpp bi mbas mi commencé dafa wax ne nañ ko bàyyi te njëkk ko bàyyi moom ci boppam mu jël décision bu am solo ci gàmm gi ne duñu ko def tay ren nañ ko doon defee ca tuwaawan njabootu alaaji daawuda ja bu mbëlëx yal na yàlla yokk ay leeram ànd nañu ci li sëriñ bi wax rafetlu nañu it li sëriñ bi dogal ca ànd googa tax na njaboot gi nee na ñoom ren ñi ngi ñaan seen muxaddam yi di ko ñaan seen président daayiri ak taalibe yi bu kenn jógee fa nga nekk jëm si tuwaawan ndax gàmmu ndax ñoom njaboot gi duñ dem tuwaawan ren ci gàmmu gi duñu gàmmu tuwaawan duñu gàmmu itam ca mbëlëx duñ jël dat pour gàmmu ren ji ci mbëlëx yi kon nag ñi ngi ñaan kenn ku ne fa nga ne nga defee ko itam ak sa njaboot waaye defin woo xam ne wii gën tabaarakallahu da ngeen di respecté li ñu tuddee mesure barrières yi ngeen mooyu lépp luy xumb xumbu yàlla mi nga xam ne mii mooy suturaal yàlla leen suturaal yàlla mi nga xam ne mii moo fi indi mbas mi yàlla ko fi jëlee nu mu gën a gaawee te sàmm jullit yëpp waaye sàmm it peuple sénégalais bi kon nag ànd nañu ci dogal bi sëñ bi jël demunu ci waawan organisé wunu mbëllëxe loolu la njabootu alaaji Daawuda Jagi dogal nekkoon leerali El Hadj Aliou Dia bu mbëlëxe diwaanu Kaolack dinañ fa amal gàmmu gi ci wàllu woowu nag police euh, na mu ko baaxoo rek ci wàllum kaaraange fas yéene taxaw tàmbali nañu ko sax fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre ak léegi opération ngir daal di yokk kaaraange askanu diwaanu Saalum ak seen alal ci wàllu woowu it am na ca ñu nu teg loxoog ñoo xamante daal fekk nañ leen ci anam yu dëppoowul ak yoon ci xayma gi dañu ci ànd ak commissaire central bu Kaolack Amadou Diop sëñ Amadou Diop ak Ibrahima Diamé. depuis le 18 ay opération de grande envergure yu ñuy def si biir dëkk bi te opération yooyu defe naa ni ay résultats yu ñu si am parce que Amna na Tolok, tolloog téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom nit yoo xam ne leen interpeller pour ñi nga xamné ne jotuñoon sol seen masque parce que le port du masque comme ni ma ko waxee rek dafa doon loo xam ne kilifa yi dañ ko digle pour xeex mbas mi. donc tamit si opération yooyu am na si juróom fukki nit ak ñeent yoo xam ne ñu jot a interpellé pour vérifier seen identité parce que day doon ay bu yoo xam ne yenn heure yi dañ leen fekk si yenn bi yi. leen a mën a identifier il faut ñu indi leen fii nii saytu xool seen identité lépp pour gën a aar dëkk bi. jot nañ ci interpellé tamit euh, juróom benn nit pour ivresse publique manifeste yenn melokaan yi leen fekkee si mbedd mi il faut ñu interpeller indi leen commissariat ñaar fukki oto ak juróom benn yoo xam ne dañ leen mise en fourrière parce que amuñu woon ay kayit wala seen kayit di baaxul yi moto ak ñett yu ñu immobiliser parce que tamit amuñu woon kayit du tolloog euh, juróomi téeméeri kayit ak fukk ak juróom ci ay kayitu oto yu ñu téye parce que borom oto yooyu jotuñu woon euh, respecter yenn règle de conduite yi am na si ñu jot a déféré pour chanvre indien maanaam di jëfandikoo euh, Sénébar te dañ koy tere. mu nekkoon euh, commissaire euh, central bu diwaanu Saloum Serigne Amadou Diop ci police ak nanu taxawee ca diwaan gu tedd googee rawatina dëgmal gi ñeel gàmmu gi ñeneen ñu taxaw ngir askan wi ak lépp luñ di muccal rawatina wàllu wér-gu-yaram muy service d'hygiène ca diwaanu Thiès ak ndaje yu nu fa dëgmal rawatina dimanche ji di fête ak Toussaint église ya cathédrale yi duñu ba dara lépp ci wàllu désinfection ak yeneen leeral yi ca Thiès Cheikh Anta Diop. cathédrale bu mag bi nekk fii ci Thiès. di Sainte Anne ñu door fi nag ay opération lu jëm ci wàllu set satal église bi waa service di d'hygiène geetaru ak seeni engin ngir fexe nag ba bërëb bi du am benn wiris di waajal nag ubbiteg l'église yi capitaine Idrissa Ndiaye du chef brigade régionale d'hygiène bu Thiès. xool nañu que weer bi ni doon am ci Covid 19 ci Sénégal wañé ko bu baax légui sax dafa néew donc loolu bo tax église bi na légui nak mën nañu ibi wat bërëb jullikaay yoy mais ñu tënk ko ci li ñuy protocole sanitaire bo xamni ni il faut ñu respecté ko bu baaxa a baax baax laaj nañu service d'hygiène mu duggal si loxom bu baax ci ñaari fànn fànn bu njëkk moy li ñuy wax désinfection moo ñu fexé bo bërëb yoy nit mëna fa julli sa ñu am benn jafe-jafe ñu jappalé leen ci jox leen saabu ak euh, dispositif tentative de lavage euh, des mains. Qui di abbé Henri VI nekk curé cathédrale saint anne bu Thiès quitte vicaire général bu évêque bi Rafet rafetlu lol jëf ji nga xamanteni wa waa service d'hygiène def nañu ko di sakku nak ci wa jàngu bi képp ku fay ñëw de nga salar lo ak digël yi nga xamanteni ni jëwriñ yor walu wér-gu-yaram digëlé na ko askan wi. kon tay ñom ñëw nañu ñu ngi désinfecter église cathédrale dañu nañu dem ci yeneen jàngu yi nekk ci diwaanu Thiès mais ma ngi ñaax nit ñi ñëpp ñuy ñëw mees nañu takk seen masque nañu yoraale gel de temps en temps ñu désinfecter seen loxo autant que possible mesures yi le ministère de la santé Nous ñu ay yu ci dimanche ngir ñaanal yi nga dañoo ak mbokk RFM Thiès Cheikh RFM bitim réew. ñu tàmbale ko lu ñeel pal ak njiitu réew ci Côte d'Ivoire euh, Georges ak euh, leeral njiitu réew ma fa ak toxal du am élection yi samedi lay doon. looleel njiitu réew ma Alassane Ouattara dénk euh, sunuy confrère You France 24 ak RFI dont sax ku jégi woote désobéissance civile mu constitution mayu ko mu toxal élection ñu déglu euh, Alassane Ouattara candidat ci élection bu samedi gi ñu dëgmal ci euh, mbirum Laurent Bagbo Laurent Gbagbo ak élection présidentielle euh, bu tout 2025 Amadou Sabarba mo tekki ay c'est un euh, un jugement en première instance. le jugement première instance la te yaakaar naa ne ci ay fan yi du ñëw rek dina am lii di jugement en appel bi te may xam na ne amul benn condamnation amna na ay procès yoo xam tamit ñu ko fiy xaar parce que tamit ancien président la woon daanaka defagum na sax foofu juróom-ñeenti at te jàpp na ne jot na fi mu toll nii mu ñibbisi fii ci Côte d'Ivoire waaye loolu nag faw ñu amal ci ay conditions maanaam yoo xam dañ koy examiner fàttali tey ne ne am volonté def lu ni mel maanaam mu ñibbisi ci réew mi waaye tamit bu ñu fàtte ñi nga xam ne ñooy victime yi bu ñu xool lekk ab kaawam nañu bàyyi tamit xel ñoom ñi nga xam ne ñooy victime yooyu noonu ci sa laaj boobu ba xam amal na ay waxtaan yu ci am ma lay wax rek ne ne amul benn yoon ak waxtaan rawatina ci sama côté waaye amal naa yéene ngir loolee mën a am ñu bëri ñi ngi laaj ne ba xam dafa am ñu ciy doxi tànk jaam ma fàttali rek ne ne loolu amul amul benn intermédiaire boo xam ne dox na ci bile mbir la nga xam ne moom ngay wax ni maanaam ci benn interview bi moo defoon naan dama ciy jël ay dogal dal du ma ci adduwaat ndax lii di décision d' appel rek lay xaar te boobu bu jotee lépp li nga xam ne dinañ ko ci réglé dinañ ko def ci app ba ndax dama koy amnestier wala dama koy gracier lolé mom duma ci addu ben yoon ndax euh, jotagul te duma ci wax ba xam tamit dina nek candidat 2025 ah loolu mom xalaatuma ko benn yoon ndax lii may def ni rek ab sacrifice la te jàpp naa ne doy na suñu constitution dina régler sax mbir mi ben yoon. j'espère que la constitution va nous régler ce problème. ginnaaw ko d'Ivoire Georges ñu dem ci Guinée ak parti bi di FNDC bi joxe xalatam ci euh, nga nag séjour gu fa ab mission diplomatique internationale doon amal. am mission bi nga xamante ne ko seqoon ñoo di waa CEDEAO Union africaine ak mbootaayu xeet yi ñom nak seen émissaire dañoo woté won bañ ca noppé ab euh, dialogue manaba ab waxtaan ngir euh, jàmm delluwaat euh, ci réew ma gannaaw jafé jafé yi nga xamante né nemmeeku nañ ko fofu ci Guinée gannaaw élection présidentielle bu amoon 18 octobre gi ñu nekk ni Front national pour la défense de la constitution nak né yooyee émissaire lañ fa doon dox daal ñom xamuñu ci dara loole bañ nañ sax ba ñom dañoo mujj du mooy ak ab ndaje ak ñom ndax li ñu jàpp li leen fa indi won rek moo di def lépp ba Alpha Condé Blanchir li nga xamante ne moo di coup d' état ba mu def ndax amul sañ-sañ amoon ab ñetteelu mandat foofu ca boppu réew ma ñu fàttali yit ni mission conjointe boobee dafa woote woon euh, takki der yi nekkoon euh, këruk euh, Seydou Dalène Diallo wóoroon ko ñu jógee fa ñen ñaa ngi doon neen sax ñoom jóge nañ fa waaye Seydou Dalène Diallo ca Twitter xam le ne ni ba léegi kër ga takki der yaa ngi ko wër te seeni siège dañ ko tëj ba léegi. ñu waxtaanee caricature yi di euh, ñàkk war maak dessin yi jëm ci euh, Seydina Mouhamad alayhi salaatu wa salaam conseil islamique ba ca Mali ñu ngi woote ndaje mu yaa àllarba tey jii ngir ñaawlu. manifester bi mu ngi fas yéene am bu 14h jotee ca grande mosquée bu Bamako. Euh, boobee rassemblement ndax nam nañu déroulé ay action yeneen yi action bokk na ci ab déclaration bi nga xamante ne jullit yi ca dëkk ba yëpp ñoo koy seq euh, ci xutba ba itam euh, ci euh, mawludu at gii nii bi nga xamante ne door na ba léegi jàppale ni itam ca Turquie Turquie xamle na ni dana jël ay dogal ay mesures lu jëm ci wàllub yoon ak ci wàllub diplomatie gannaaw bi hebdomadaire bi di Charlie Hebdo fësale ab caricature bu njiitu réewum Erdogan ci ab communiqué la présidence bu turc xamle euh, ñu né action judiciaire ak euh, diplomatique yooyee lu wara a am le manam yobu journal ba ci yoon euh, ndax caricature bobé ci Algérie mom jitu réew ma Abdelmadjid Tebboune mom yobu nañ ko ci l'hôpital militaire Ain Nadia bu Alger ci ab communiqué ñu né ay médecins ñoko diglé digle mu dem ci unité de soins spécialisés bu hôpital bu l'armée bobé ñu né nak wër gi yaramam amul benn jafé jafé jarul nit ñi di ca jaxlé lolé la communiqué bi xamle ci fàttali nag samedi gi ñu weesu njiitu réew ma euh, foofu ci Algérie di Tebboune xamle woon na ni moom daal day isolé wu moo ko jëlal boppam nag def ko gannaaw euh, ni ñu nemmeeku ay cadre présidence amoon ay symptômes yu Covid 19. jërëjëf Georges Déthié Diop RFM benn waxtu tegal ñaar fukki minutes ak juróom sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Assane. ñu basket ak euh, préparatif tournoi Kigali euh, coach bu jigéen ñi. bu góor ñi. <laughs> bu góor ñi baal ma. bu équipe bu Sénégal di janoog taskatu xibaar yi tey ci ngoon. moo di Boniface Ndongo doonoon ni jamono jour équipe nationale bu Sénégal moom nag ci weeru février bi weesu lañ ko dal di nommé mu dal di jiite équipe bu Sénégal ñoom nag euh, ñu ngi waajal googule tournoi mi nga xamante ni ka ca am ndam di nga daal di qualifié ci li nga xamante daal moo di afro basket tournoi googule ñu koy amal ci Kigali ñaar fukki juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre mom nak tay ji ci ngoon la fassiyene ci liste jour yi ana lan la war a don a doon liste googule tontu leeg sooda cam équipe bu Sénégal ñeel gor ñi nak mi ngi wut qualification gu koy may mu dem ci afro basket 2021 motax nak nag ni ki tey jii ci ngoon nañu fassiyene yéene fësal liste gaynde yi nga xamanteni ñom nañu fassiyene présélectionné ci lolé nak ab laaj di samp ban liste nañu mën a pap Pape Mor Bassine Niang di journaliste ci quotidien record ci yema indi tonto nañu xaar liste bo xamanteni ni gina am ay jeune gina am tamit ay joueurs d'expérience parce que buñ ko faté la ñu war jouer éliminatoire pour Coupe d'Afrique balaa ngay xalaat Coupe d'Afrique kat di ko gagné da ngay qualifié ba pare donc liste bi ñu mën a xaar mooy liste boo xamante ni gën a liste élargie lay nekk forte présence d'anciens joueurs parce que il faut expérience tamit mu am ci genre compétition yi ay mag yoo xamante ni ñooy gunge xale yi ñu mën a qualifié parce que groupe bi ñu bokk bu ñu jàpp ne dafa yomb. technicien bi di Chérif Aïdara moom it mel la xamle même bu fekkee sax que ni jàpp na ni waruñu bàyyi ginnaaw ndaw ñi waaye itam joueur yi nekk ci championnat local bi. gis nga équipe nationale moom mënoo ñëw rek changer lépp en même temps donc il faut anciens yi gën a parce que léegi Afrique amatul l'équipe bu ndaw donc je pense que euh, suñu yenn cadres cadre, il faut ñu garder leen pour ñu mën a accompagner jeunes yi voilà je pense que si jeunes yi aussi am na ay joueurs yoo xam ils sont intéressants si U18 yi am na ay jeunes yoo xam avec le temps war nañ mën ñëw dans le championnat local aussi am na ay xale yoo xam ne waaw am ay aptitude pour pour jouer équipe nationale euh, Pape Moustapha da koy par Pape Moustapha c'est un joueur boo xam ne dem na coupe du monde ak ak Sénégal je pense que def na foofu performance bu baax bu ñu sukkandikoo nag ci ñaax ñi ñu tàllal suñu micro listub sélectionneur bi di Boniface Ndong war nañ ci gis ay joueur yu expérimenté Nam waye itam ay joueurs yu yees ne l'olé dina permettre ñu xam lan moy au niveau lepp nak ci ndimbalu ñi nga xamanteni tam nañ tañeer bi. Soda Thiam fatali Sénégal nak ñu mu groupe maudit di Angola Mozambique ak Kenya jappalé nak gile tournoi bu amal fofu la Kigali di capitale de Rwanda moy doon premier test pour Boniface Ndong mi nga xamanteni ni ñen le fukki attaque ñett di am ñu daldi di basketball ak tey ak ñi nga xamante dal ñu ligue bu basket bu dakar ñom nak dañu amal ab euh, manam cérémonie bi nga xam dañuy joxe ay diplôme entraîneur ak animateur japp initiateur de basket lool nak gannaaw leul bi nga xam te ne daal ko doon amal fan yi lay weesu woon ni ci dal déglu président ligue bu basket bu Dakar di Samba Gueye ci micro Soda Thiam dañuy def suñu cérémonie de remise de diplôme bu diplôme animateur initiateur bi nga xamante ne semaine bi ñu génn organiser nañ ko euh, ak euh, en collaboration avec la mairie de Dakar à fédération sénégalaise de basketball ñu am lu lu lu néew pour am euh, maanaam téeméeri xale yoo xamante ne def nañ stage bi ñu profité ci di leen di leen remercier di leen félicité donc tey moom dañ leen di dajale pour sargal leen wante du doon loo xamante ne lu yomb la parce que maire Dakar dafay ñëw su xam waa madame su xam warda nii moo koy présider moo wax l'inspecteur régional du sport mais vraiment li nga xamante ne moo ñu ci neex mooy su Boniface Ndong jox ñu honneur ne day ñëw toog a xale yi waxtaan ak ñoom jàppale leen ci remise de diplôme bi nga xamante ne nii dafa am solo bi ñu koy def incha allah wàllu làmb Cheikh Tidiane CNG bi nga xamante ni moo yore eh, li nga xamante ni mooy kon eh, kilifteef li eh, war na changé président ci ay bés wi ñu dëgmal. waaw ba tax na jamono gi jëwriñ gu yore wàllu tàggat yaram bi di Matar Ba mu ngay sumb ay waxtaan di recevoir yenn ci nit yi nga xam te ñoom ñooy yëngu ci wàllu làmb bokk na si ñooñile association des amateurs de lutte ci njiitalu Doudou Diagne Diécko moom euh, xam ni moo di démb gannaaw ba ko jëwriñ gi euh, dalale wax na ko xalaatam euh, ba jàpp nañu daal filek altine incha allah danañu xam ana kan moo war a jiite lii di CNG de lutte ñu déglu ko ci waxtaan mu jot a seq ak ñun. woo ñun amateurs ñu wax ko suñu xalaat liñ ko wax it mooy na nekk intérêt làmb kuñ fi mën a teg tamit na bëgg làmb te moom it gis-gisam mooy kuñ fi war a teg na bëgg làmb son si ngir làmb léegi nag yàlla dogal na bu paree xam naa ne altine bu ñu waxee nag ba pare xam naa ne léegi bu soobee yàlla ministre des sports peut-être mu wax ki nga xam ne nii tey mooy jiite CNG ak ñi muy àndal ñi muy àndal nag il faut mu nee aussi dina wàññi CNG bi xëy yeneen ñi ay commission organisation lay doon dugal si ñëpp ñëpp nga xam ne tey ñu ngi si làmb ndax ñu mën a organiser làmb dañ ko doxal dañ ko développer kii jiite aussi ñu xam ne liñ ko dénk Sénégalais yépp ko bokk mu ubbeeku déglu nit ñi di waxtaan ak nit ñi guddeeg bëccëg nga xam ne làmb tey dina dina am dimension mu gën a àgg mu nekkoon Doudou Diagne Diécko njiital amateur yi ci wàllu làmb ci euh, coppite gi nga xamante dëgmal nañ ko ñeel président beneen bu CNG euh, de lutte. Euh, mhm. félicité jaajëfal it président Alioune Sarr. voilà si liggéey gi nga xam ne jot na ko def boobu ak léegi. Mm, très bien ñu waxtaanee football ak Ligue des champions. Mhm. Juventus FC Barcelone gën a ràññiku ci match ngoon yi. waaw ah, tey jii ci ngoon ci bu 20h jotee moo di choc bi waaye jàppale ni googu la choc kii di Cristiano Ronaldo du ko fekkee nekk ci Juventus de Turin la ko waral moo di lii di coronavirus ba tey moo ko bàyyiwul geneen jongante euh, diggante Istanbul Başakşehir ak Paris Saint-Germain équipe euh, turki googu foofu la euh, ki di Dembaba daldi ne ñu d'Aldi wax ci geneen jongante diggante Rennes ak FC Séville ci Espagne ki daldi amalé amale di Mbaye Niang mom du ca bokk qui ki di gol bi di Alfred Gomis nak mom amna nañu ni dana ca bokk ci gile jongante match googu nañ ko daal amal itam ci bu 20h jotee match bi nga xam nañ ko téla amal tay yi ci bu 17h55 jotee ñeel ba benen jour jouru Sénégal di gol équipe nationale bu Sénégal

cirë ngeen jëf gaalu looco gi mbëkkante woon bërki biik ak batop sangomar bu marine nationale lu mu gàtt-gàtt ñeen fukki nit faatu nañu ca journal La Tribune moo ko bind ci xëtamu njëkk pil yéenekaay bi am na benn waay bu newoon ca gaal ga mi ngi wax ci la tribune na mbiree demee waa ji Ibrahima Fall tudd am ñeent fukki ak ñaar cosaanoo ca Ndar mi ngi ak ñeenti doom nee na juróom-benn fukki junni maanaam 300 la joxe woon ngir mën bokk ca ñay dem keroog dimanche ay 10 ci guddi ca la ñu ñoo nga départ woon sumbi jun wutali Espagne Ibrahima Fall ne gaal gi ñu duggoon moteurub moo ca newoon bi ñu ko bëggee sensé ak moteurub taxawal gal gi bañuy set fan lañu wara taxawal suñu gal gi fa lañu batop marine bu Sénégal fekk mbëkki kanam gal ga xar yuuxu yi tambalé takar nasé ku nekk di set numu rawalé bopam Ibrahima Fall ne fan wéri nit ak juroom ñent lañu ñu sowé waye amna lu upp ñen fukki nit yo xamné ba légui kenn gisulén leen sax faatu nañu ndax ñu bari ci ñom mënu ñu ndox mënuñu fay loolee mu wax La Tribune nañu am na it kenen ku néwon ci gal ga ku ñu naan abdoulay Gueye am ñaar fukkeet ak ñent dëkk ci Saint-Louis momi dëggal nako gal gi ñëk ami jafe-jafe ci digg géej ndax moteur bu doon tak ñaca faatu l'observateur xëy nañu indil juróom ci ñom Omar Sow fan fanweeri at ak ñaar la am Bekay Diak fanweeri at ak ñaar la am El Hadji Ndiogou Sarr fanweeri at Abdoulaye Anne fanweeri at As Damka dib maçon moom mi ngi amoon fanweeri at ak juróom-benn ca Pikine ga ca Ndar gi nga xam ne ñu bari ci ñi faatu ci gaal gi fa lu ñu dëkk l'observateur nee nañu seeni mbokk dëjël nañ leen bu nuppi boole wanaasu seenu naqar toog di tiisu li waa Ndar di dund Ndar googe journal Les Échos xëy na di ñu wax ci xëtamu njëkk ne am na geneen gaal gu foteer démb na mu a juróom-ñeenti fan di wër a wër wagaaj xamuñu fan la yoon yu féete ba ñu demee ba sonn boole ko xiif ci la ñu jëlee teeral gaal gi ca boori Hydrobase ba sandarma yi di yegsi juróom-ñetti nit la fa fekk ña des ñëpp dañoo daw dugg mboy gi sandarma yi xamle nañu ne teg nañu loxo ñaari moteur gaal ak ay bërigo carburant vox populi mel ne ko naan ñi immigration clandestine dimba ki mi dana naqare régler ci réew mi ndax ba ci lu jëm rekk ci daan ministre intérieur di Aly Ngouille Ndiaye moom safaan wala gis ne ba ñu ko ca laajee dana déet déet gu wow kong tuuma yi wow kong la ñu la seen kaay nañu moom lañ jiital parti Pastef di Ousmane Sonko gàll ci ndoddal Macky Sall ci li xew ci réew mi di gone réew mi jóg jël gaali loo ciy mbëkk wutali bitim réew ne Barcelone wala Barsaq Sud Quotidien dolli ñu ci ne Ousmane Sonko nee na lu jiin njaag état bu Sénégal mooy njaag ci li xew Macky Sall la joxar bi baaramu tuuma ci ne moo jëfewul li mu diggoon ndawi réew mi mu di wutaleen am xëy ñu ne déet na waaye mu jël ressources yi ci réew mi yëpp jaay ko waa bitim réew moo tax gune réew mi dem ba yamale toog ci réew mi ak ku leen ray rey lu rey mbuum deec giita ngas gi woon ci diggante ministre enseignement supérieur Cheikh Omar Anne ak journaliste bi di Pape Alé Niang ak Mody Niang ak Nafi Ngom Keïta coow la teere ji woon tribunal yéenekaay yu bari ñu xëyandool xëy nañu wax ne justice àtte na ko ba jox dëgg Cheikh Omar Anne Walf Fadjri nañu njiital kudd la woon moo leen yóbboon ci yoon doon leen toppee tuumay sos yoon di justice daan na Pape ak Mody Niang ñetti weeri kaso yu ànd leen fukki millions yu ñu war a jox Cheikh Omar Anne source nañu fukki leen alamaan le ceex na leen ko am na ndam ci seen kaw la L'As Vox Populi ak Le Quotidien xëy xibaar bi ci seen xët yu njëkk keneen ko yoon daan Le Quotidien nee nañu moo di honorable député Moustapha Cissé Lo tuuma yi mu yëkkati woon gàll ko ci ndoddal jabari ay miiru ñëng président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ci coowal jiwu gerte gi mbir moome tribunal àtte ko démb ba daan Moustapha Cissé Lo juróom benn weeri kaso yu ànd ak sursis Universel Post ak seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi ñu àndoon ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye di ko jaajëfal naka noonu yéen ñu doon teewlu xibaaru bëccëg geeg RFM géej géeg jéeyaam ak gune yi nga xamante ni ñoo ci soobu di tukki ci anam yi dëppoowul ak yoon euh, ci xibaar yi déggoon ngeen seede yi kenn ci yooyu ndaw fekk baax ca euh, mexe Euh, rakk ja wala mag ja moo doon indi seede ci ne daal ñoom mosu naa ne ndox ne sax ñoom ndeke seen xel euh, tukki ak euh, mbébét yu ni mel ma nga ca ca kat rakk ja nee na mu ngi doon yëngu ci wàllu njaayam glace foofu ca ca ca ci xibaar it woote wàllu bu ay yaay yoo xamante ne jaaxle lool ci seeni doom yu soobu ci géej gi ci xamu xamuñu ndax ba tey ji ñu ngay dundam déet bu nu sañoon nguur gu Sénégal jàppale leen ak i pexe ba nu wër leen daal di kon gisaat seen doom yooyu Seko mi jaar conseil discipline bu magistrature bu Sénégal ci xibar ñu ko topé xalaat bu mu bu Khalifa Ababakar Sall mu gisoon ay ci procédure te euh, Sénégal ko dafa juge bi dafa jalgati Yonal gi war ci métier bi Aliou Ba technique bi elaja